ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na Tapha Tine dóor na ci suuf attention Sa bu baax dem contentement di jënoo génn chaque jour comme niñ koy defee chaque jour dem seeti champion bu ndaal di toog waxtaan ak moom ci lépp lu soxal làmb tey nag ki ñu dalal kenn du ko gis laajte kii kan la kenn du ko présenté di kenn dañ koy nuyu rek daal di xuus ak ci waxtaan bi tuuti Batista maa ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si Leewtoo TV ginnaaw bi ñu sante yàlla julli Seydina Mohamed. am sa micro waaw sant suñuy suñuy waajur am déet. Mhm. di leen ñaanal am de ñëw bi ngeen ñëw fii rafetlu nañ ko di ñaan daal yàlla na seen mbir gën na rafet daal. Mhm. waaw ndax àddina noonu di leen ñaanal daal seen chaîne bi yàlla na ko ni ñuy dégg comme ni ñuy déggee ci télé yi yëpp yëpp yëpp waaw. Mhm. jërë ngeen jëf. amee bi ginnaaw bañ ko nuyoo bu baax wax waxaat du bëri wax Barissa suñu mënoon xam sa carrière nga ñëwaatoon ci tuuti nga xam ne gëj nañ loo gis waaw Batika benn xale bu nekkoon fii la di tarbiyu Ousa Sow mu nekk suñu mag muy magu Papa Sow di di jàngal ñu bëri am déet ba di ñu nekk fi di ñu tette ñuy bëri fii ba nga xam ne avant ñuy dem écurie Fass sax bëri naa ñetti combat yoo xam ne fii laa ko bëree daan après ba ma demee Fass si boppam Ousa jàpp sama loxo yóbbu ma Fass ba ma demee nekk fa écurie Fass am déet sama kër noonu la Ousa di mbër nit koo xamante ni lépp lu nekk ci man moom la booba parcelle bëri amu fi woon mhm. waaw Ousa Sow ñëpp doon expliqué booba ay ma ba kii euh, ball kii nu mu tudd kii waaye mbër mbëru Pikine baabooy sax booba fii la nekkoon ay baabooy ay lato ay ñoom mac ñëpp booba fii lañu nekkoon ñoo ñooñu mhm. mhm. maase mhm. Ousa jàpp ma tarbiyo ma ma moom fii ñetti combat mu yóbbu ma faas si boppam am déet euh, man ne fii di bëri après mu foog ma yóbbu moom a tax waaw Zakaria Lam ñaata combat waaw man combat boo dee xool bu ma fi fii ndax man combat yi ñuy bëri suma koo bëri hmm. waaw man yàlla dafa dimbali ba may bëri booba macha allah sama taay ak sama gabri am de dama ñëw usa jàngal ma bëri ma bëri ñetti combat yoo xamante ne daan te boo dee xool yi ma daan ci boppam mbër yooyu dañoo bëri am de presque ay treize combats wala douze combats boo ko daanee hmm. en perte ñetti combats nit ñi dañ la war a jox cër jox la respect hmm. waaw ndax mi ngi noonu boo daanee Cheikh kan doomu papa kan bu caaru yi am de maa ko daan ci moom daan Jaguar mu dem états daan laasana bu pikin am déet daan yuusu Jóob bu daan faa ñaamu daan ñoom ñëpp tey yàlla di ma bëri ma daan leen am den Lac de Guiers 2 moo ma daan ak Cheikh Ngiraan ak Fantan Ñing am déet mi ngi noonu ñooñu tey ñooñu daan ma ci boppam nga xam ne ay mbër lañu war nañ ma daan c'est normal xam ne ndax boo nee la déggee deux moo la daan loolu du gàcce du dara dëgg la woon mi ngi 2004 déclenchement grand combat mu daan ma mi ngi noonu te samay combat ba may bëri daaw ma bëri ay comme comme quelques combats yi comme boobu amul spécial laa bëri ñetti combat monté grand combat ay quatrième mbooloo bi nga doon àndal la wala mbooloo bi ma àndaloon ak doole ji parcelle mënoon fi ñëpp ousa tette ma waaw mhm. mi ngi noonu booba ousa moo fi nekkoon mënoon ma ñëpp mhm. am de ñu yàlla def mu génn am de ma bëree noonu fu ma yóbbu ma dem daan sama premier combat laa bëri deux mille deux mille deux du ma ko fàtte nongaloo ngemb moo ngemb na indi ko ci deux cent cinq bi am de ma daal di koy daan ñu jox ma yuusu jóob bu caaro yi ma daan ko dóor paptin syndicat mu daan la déggee de dóor ma ma daanu mhm. kon làmb ñun nit mënuñu kii noonu la suñuy carrière demee mhm. waaw ci sa carrière si combat yooyu nga jot am la moo la ci gën a marqué instant bii nii waaw sama combat yi ma njëkk a am ci wof yu ma ci daan dafa bëri ndax tey boo dee xool ko mën a bëri Pikine hmm. ko indi ka ko ndam am a yàlla mooy yor ndam hmm. ko neex jox ko hmm. waaw a yàlla mooy jox ko ko neex jox ko ndam waaw yàlla mooy xool ku ko neex jox ko ndam nii bi nga dalee bëri ak léegi sa carrière est-ce que am nga ci régler loo xam te ne nii dootoo ko defati wala su fekkoon à refaire dootoo ko defaat waaw dëgg la lan moo ñu yàqal suñu kër yi am na ndax boo dee xool ñun bañ daan bëre mhm. amuñu woon ay conseil waaw ñun bañ daan bëre boo dee xool ñun amuñu woon ay conseil dañuy mhm. jékki-jékki ñooy ñooy mag suñu mooy mbër yoo xam dañuy kii suñu wetu làmb mhm. ñooy yóbbu suñu bopp ñu fi nekk yëpp ñu lu ñu wax duñu leen mën a dégg duñu leen dégg duñu leen toppatoo loolu mooy loolu boo gisee suñu carrière xaw a tuuti loolu moo ko indi ndax boo gisee tey mbër de déclenché comme ay Modou Lo nu ñu amee encourage yi ñëw am déet ñii ñëw jàpp fii nii am déet boo ñëwee tey pour ñëw làmbam di mel ñëpp am ñëpp ab jàppale ko ci buy bëre am ay ñu koy jàppale loolu mbër da dem ñun amuñu woon loolu ñun booba jàppale bi ñoom Modou Lo am ñun amuñu ko woon ndax ñun ñoo leen bëkk bëre Modou Lo ma ko ay 5 ans wala 6 ans am de jàppale bu am ñun amuñu ko ñun jamono jooju amuñu jàppale boo gisee ay man Moussa Dioum ay ñoom dos ñu suñuy làmb xaw a noonu jàppale bi mbëri léegi am ñun duñ ko jàppale ndax dañoo bëri mbappa dosoon dañu bëri mbappata mbappa dosoon benn saako ceeb 600 mbër taxaw billaahi wallaahi taala bu ma demee jël mbappa finalu booy bambara nga xam ne mbër def naa lu ne ci làmb inte 19 ba ko Ousseyn tëggee maa daan ñëpp jël final bi mbappatu boobu duubalees papay booy Balla Gaye dama dem ba buntu kër ga jël ko waaye 72 heures yi kon nga xam ne sant yàlla dem bu Dakar Alassane Diakhaté yàlla na ko yàlla yërëm suñu entraîneur xari ko àjjana di at bu faaf biir Dakar ma man maa ko jël kon loolu sant yàlla la nag mooy génne yàlla mooy génne mbër mooy xool lu ko neex tey mën ngaa daan ñëpp te wala dàq bal te doo dem amee ah, sama bëri ñëpp a ko rafetlu ci àddina waaw sama bëri ñëpp a ko rafetlu ci àddina waaw àddina moom yàlla mooy defee noonu instant bi ñu toll ak fi làmb ji toll niveau bii ni mu nekk nii pare nga pour bëriwaat. waaw làmb ji tey maa ngi xool pare naa pour bëriwaat it pare wu ma pour bëriwaat dama xam ne yenn promoteurs yi ci biir xam nga dañuy bëgg di la jox ay billets wala ngay au lieu ñu da ngay bëgg ñu jox la 9 bloc wala 10 bloc nga jaay ko loolu amul njariñ hmm. loolu tax balaa ci ak nga jàpp liggéey ji Serigne Touba sax moo la koy gënal quoi jaay te ñoom seen bopp koo jaay noonu hmm. loolu rafetu loolu tax làmb moom yooyu soxlaatu ma ko hmm. balaa ci ak nga dem Touba ne ci armeel yi wala jàppale nit ñi néew bu faat ñu koy denc moo la koy gënal demee foofu dina lay jox ay camion bay di jaay wala dara promoteur yi yow àndoo ci loolu ànduma te nit daal lëndëm da gis promoteur xool leen seen kanam rafet mais bu leen jàngee nit daal lëndëm yonent bi rek moo leer mm-hmm. waaw nit daal lëndëm yonent bi rek moo leer Mm-hmm. nañ koy xamee noonu. instant bi boo gisoon promoteur bu la jox xaalis carte sur table ne la baa nii ban mbër nga nga moom nga. waaw waaw mbër yi ma a bëlee bëri na raw bu mm-hmm. am na combat Alioune Seye ñoom ñëpp maa leen raw ci làmb làmb tëddëri rek ku bëre 2004 la déggee 2 mm-hmm. tey bu ma yàlla dimbal maa leen raw te maa nekkoon favori bi kon nag yàlla booy daanu tey suñu borom mooy mel noonu ci wax mi ngi noonu àdduna te xale yi dañuy ñëw ba nga jël revanche la la gën numéro 2 waaw bañ bëgg naa ko jël ndax yàlla rek moo taxoon mu daan ma mais moom bëreem sax mënul bëre am de mu génn saaku yi a xam ne làmb ji leneen showman di Zoss bëgg a dellu ci làmb lan naka nga gisee loolu waaw waaw mbër la te Zoss def na fi ay qualité ci làmb y xëy na Zoss mbër la di mbër moo xamante ni ci boppam def na fi lu ne ci làmb Zoss mm-hmm. waaw mais tey bu ñëwaatee day bëgg dellu ci làmb nit ñi dañ koy nangu mm-hmm. ndox Zoss mbër la mm-hmm. combat mbaam day neex te am na supporter waaw te parcelle la dëkk waaw mi ngi noonu tey lu mu dëkk parcelle dañ koy ñaan dooma parcelle gu bëri yal na la suñu borom may ndam mhm. ci daraji rasululaay mhm. waaw ndax parcel tey buy am ndam tey ñëpp dañu kontaan mhm. ah mu ngi noonu tey tey Modou Lo nekk roi des ko fi quatre-vingts ans yi drangeul kenn ñëpp lay kontaan am déet ndax parcelle dafa yàgg kenn mosu fee jël roi des arènes waaw moom bu demee tey ba ñëw indi roi des arènes Modou Lo nit mënu koo bañ ci këru àddina waaw Modou Lo mënu koo bañ ci këru àddina waaw ah, nit nag mën naa am jikko mais pour bañ Modou Lo wala nit mënu koo bañ ndax mbër kaamin la ku jël roi des arènes indi ko parcelle am di lool kenn mënatu laa fay bu la tooñoon sax tey doo gis tooñam ndax roi des bu mu indil loolu mooy doomu aadama waaw ah, mi ngi noonu àlamb da ngay nekkee noonu si ko na papa sooy di mbër moo xam ne nekk xale nekk sama rek ñoom ñëpp usaa jàngal ma moom it ma man mënoo leen ci làmb jàngal leen bëri ñoom tamit am de di mbër moo xamante ne def na lu ne ci waaw ni def na lu ne ci làmb koo fàtte ci ko àddina mhm. mi ngi noonu daf dafa am mbër la ñu tuddee loolu ñaane leen parcelle ñoom ku ciy bëri la ndam mhm. waaw ne ne suñu borom kat du liir sa coobare coobare suñu borom la mhm. waaw mi mooy àddina waaw bépp mbër moo xamante muy liir bu ndaw ngay ngem boo parcelle yàlla na la yonent bi may ndam ci doole yi Seydina Muhammad ndax ñëpp ñëppay bëgg ndam waaw ñëpp a bëgg ndam ci parcelle fii kenn amul fi nekk naan mbër mee bu ma am ndam amul lool ñëpp dañuy ñaan parcelle yàlla na roi arène def fii 40 ans dañ koy ñaan balaa ñëw ci affiche dañuy des desandee geew tàggatoo geew yow instant bi ñu toll dañoo ne ku bëgg dara def dara mhm. yaa ngi bëgg ay combat est yaa ngi entraîné boo ma xoolee xam ne maa ngi entraîné soxna si barke Rosso ñun toxuñu naanuñu barke alxuraanu karim bëgguma sax di entraîné ay ñaari weer ñi benn weer lay wala 15 jours toll nu ma neex loolu bokk loolu si jëmm nit ñi la am na ñoo xam mën nañoo entraîné 90 ans cuuju ginaar sax leen ëpp loolu kenn calcule ñun ay xale lañu non ñun jëluñu non boo jëlee sa lex génn yaa ngi ne yaa ma boo jëloon tey sa lex génn barke alxuraanu karim man mi ngi ne oo ma lex barke alxuraanu karim mi ngi noonu tey booy jël dara wala da ngay xool lex wala n wala da nit génn nga xool wala nit kuy naan doom nga xool biir bi ñun naanuñu doom toxuñu barke alxuraanu tëdd waaw yor suñu jabar mu suñu taxawaalu si sax ay xale lañu mais nag nit daa lëndëm chaque jour ma ko waaw mu ne chaque jour ma ko day am promoteur bi yi ñu lay jox la ñu nangul supporté képp koo xam ne bëgg naa nga ni ma léegi dama lay dem bëri ndax bëri mooy ñu métier am de lamb def nañ CNG at yu mu yokk ci lamb sax cinq ñun soxlawuñu lool mhm. na gindiwaat at yii ñun retraité nguñu ci lamb ji mhm. CNG bu waxee ay ñetti at ak ñun soxlawuñu lool mhm. ndax maa la déggee deux ñoo maaf ñoo bëri 2004 am di ñu noonu nga xam ne ñun ay xale lañu barke alxuraanu karim waaw tëjee mooy instant bi sa adversaire potentiel ñoo bëgg nga limal ma leen pour mu tëjee leen si taan comme ça promoteur bu ci gëm li nga gëm. xaar carte sur table mu daal di la sa adversaire ñan nga teg bët SB. non dëgg la promoteur yi ñu gis que ñoom xam nañ ma fii parcelle boo fi bëri ñëppay mobilisé wu jàppale leen tey ñoom promoteur yi mais promoteur tey bu ñu ñëwee xam nañu sama ñi ma war a bëreel barke alxuraanu karim xam na ñu ma war a bëreel bu baax a baax a baax am déet mais boo yi nga xam ne dañoo génn sax nangu naa leen a may sens yopp ñu ñëw bëri am barke alxuraanu karim boo gisee ay mbër yoo xamante ne dañuy toog fee di woote VIP te maa ngi te bu ma am déet Moussa ah, waaw bañu ma Moussa Ndoye munu ma munu ma koo bañ munu bañ barke alxuraanu karim wala Issa Pouye sax waaw ah. wala bëggoo Issa Pouye ah, non moom mbër la te sama nit ki na defar waat rek comme boo duggee ñëwaat na defar waat xam ni comme sorteem bee baax gën a entraîné waat àddina noonu la bañu ma ko mais na defar waat ndax boo jugee ci tolof tolof da ngay defar waat waaw boo jugee ci tolof tolof da ngay defar loolu la àddina boo waaw na ngay defarwaat mi ngi noon mais man daal comme ay Moussa Ndoye yëpp nit boo daanoo moom soxla ba ma nit ku daanu moom bu am waratoo am mbañ kuñ la jox da ngay bëre mhm. ay Moussa Ndoye yoom ñëpp pare naa pour defante ñoom barke alxuraan xale laa mosumaa tox billaahi wala barke rasulullaah raw lu ñu ñu daan daan naa le ñu ñu bëre laa bëre te maa leen gën a foot mbër yi ma bëri ma xamal la si woon maa leen gën a foot mbër yi ma dël man mbër yi ma daan mbër yu importance laa daan mbër yoo mbër yu am doole laa bëril daan leen mhm. xale laa musumaa tux musumaa naan mais boo nee diw xale la wala diw mag la yooyu yëpp amul làmb amul xale amul mag mhm. am de làmb amul xale amul mag ku feebar munoo bëre boo retraité mënoo bëre ñun nag ñi ngi sant suñu borom gëm sëriñ Tuubaa mhm. am de nekk ay xale yu ndaw am de dëkk parcelle toxuñu naanuñu am de déggoo leen demuñu boîte demuñu danse nit daal lëndëm képp kuy taxaw naan nit ñi moo gën a lëndëm yonent bi rek a leer waaw ku fi digoon nit tey un million ñu la demal nga jëli ko suba nga ñëw mayel un million nga kontaan nga dem sa kër mun la dimbali ma kat gab bi dafa kii wala laa nga gis nga commencé kanam di changé nga xam ne nit daal lëndëm yonent bi rek moo leer loolu dafa leer bi rek moo leer passé Iba Mar Diop ñi bi gis fa benn face to face bu jër waaw diggante Siteu ak Papa Sow xam Papa xam Siteu a wax ci affiche du affiche boo xamante ne ñun ñun ñoo ko doon indi mais jamono ji suñu waaju dafa génn àddina am de yëngu-yëngu dama koo xaw a wàññi tuuti tuuti tuuti boo xam ñun seetaan nañ ko lépp si signature boobu dafa neex am de Papa ñu yar ko fii jàng usa magam jàngal ma bëri ma mënoon leen man ma jàngal ko bëri am de di combat boo xamante ne combat la ndax signature bu neex lay doon ndax Siteu dafa doon mbër moo xamante dafa am a woon a boole mais Papa Sow ak Siteu làmb maanaam Papa Sow Siteu du loonu làmb comme day mel ni Sa Thiès sa li ko kii daanul mbëru waaw Boy Niang loo taxoon gi mais bu fekkoon moo ko te kenn waxu ko mi ngi noonu tey boo dee xool arrêt déclenchement yu mu di ci am gàllankoor tuuti moo ko yoon mais boo yàlla defoon tey mu daan Ama Baldé doo ko wax demal nga jëli ñëw mais làmb nag suñu borom mooy yor làmb di face face boo xam def nañ ko comme bu neex a neex la ñun seetaan nañ ko waaw mi ngi noonu te làmb ji dafa doon loo xamante ni te yàlla yàlla nañu bàyyi ba jouru combat ba barke alxuraanu karim mhm. foofu lañ yàlla nañu yàlla ba jouru combat ba si gis naa signature neex na di ñaana Papa Sow mi nga xam ne suñu rakk la fii la juddoo am déet mi ngi noonu yàlla may kon ndam loo xamante ni du ci am sax benn faute wala benn trac yow ci bataille psychologique bi loo ci gis bataille psychologique bi dina def démb ku ne di sànni sa morom ay trac lan nga ci gis waaw bataille bi ma ci gis waaw boo gisee si tax Papa mais ku xool xam ne da ngay xam ne Papa Sow am déet lañ ko teg ci entraînement ak boxeur yu ko wër am déet barke alxuraanu karim billaahi wallaahi taala du moroomu sax fitta boo ko xëy ne am ñoo xamante ne nag dañuy mer wala du moroomu fitta ndax làmb sax làmb moo tëddee kurul sax du morom Papa Sow dafa doon bër moo xamante ne am na entraînement man ñun ñun di wax ak ñun am déet tey Papa moo ñu gën a ñemee entraînement dëgg la bëgg boo wéetee gore wéetalu ko gore yàlla dëgg la bëgg ba ma xamale ci loolu yàlla dëgg la bëgg man mii di wax Papa Sow ma gën a ñemee fukki junni yoon ma xam ba turam mooy loolooy deuxième turam ndax yaram yi ñoo bokkul man mën naa toog ñaari at duma entraîné un damay ëpp ñëpp mi ngi noonu yàlla mooy bindee noonu nit waaw di ñaanal Papa yàlla na ko daan jël bu leer nañ bu amul benn werante waaw mi ngi noonu di jànnu yu di jër bu amul benn werent waaw mi ngi noonu affiche bi nga xam ne moom ci weekend bi weekend bu tàng jër mhm. Mame Balla Mbaye Guy gi Gris Abdou Diouf ndax nga gisee ñaari affiche yooyu noonu waaw ñaari affiche yooyu ba ma ciy gën a gis daal man ba ma ciy gën a gis sama ñaari affiche laay gën bu Papa Sow ak bu Gris 2 mhm. Gris 2 mi nga xam ne sama rakk la ndeysaan ñu nekkoon Fass magam nekkoon Gris Bordeaux am de am yar am teggin Maodo di jàng alxuraan di nit koo xamante ni fu ma la gis ñaari loxo lay dow nuyoo la kon Maodo bu amee tey combat day mel ni maa am combat Papa Sow bu amee combat day mel tey ma am combat ndax Maodo dafa doon mbër moo xamante ni jox ñëpp cër yàlla dëgg la bëgg boo wéetee gore boo lu koo gore bëgg buur baax na waaye boo bëgg laa ko gën am yàlla yàllaay buur ñàkk ko mooy buur mi ngi noonu kon di ñaanal nag Maodo ci boppam daal yàlla na ko daan jël boo xamante ni daal Abdou Diouf fa lay jaari daal <laughs> de de de dem maat fi gol tàppe am de mi ngi noonu barke alxuraan seetlu nga Abdou Diouf bu baax 11 ans ci ginnaaw dafa duggoon biir Fass fekk fa magu Gris 2 di Gris Bordeaux numéro daal di koy daan du Fass 11 ans après war des ak raxam yow xam raxam bu baax instant boo ko doon conseil lan nga koy conseil waaw du ma ko ko ndax ndax ba may ànd Gris nekk écurie Fass di contact ak Gris ma xam Gris doole ju ci am Maodo juddu fekkuñu fa kon kon xam kon xam naa leen ñoom ñaar ba Gris di bëre Abdou Diouf maa nga foon ba muy ñëwaat ba mu ñëwaatee dëkk ko maa nga foon Gris da nga ni Gris ni Maodo xale bokkul Maodo xale la Maodo toxul naanul demul boîte demul fenn xale bu ndaw a ndaw ci làmb la am de combat bi lu mu ko jaral barke alxuraanu mu tey man maa la new lu mu ko jaral te Abdou Diouf tey na xam ni na ñëw rek jébbalu euh, Gris 2 daan ko mu dem ñibbi leneen lu mu def ci làmb ji rek day sono boppam bu doole yi bokkuñu ma ne ko doole yi bokkuñu lu leer laa la xamal Maodo magee naa ko presque ay onze ans te gis nga ni ma mel nit gënuma soxor nit gënuma ëpp doole barke alxuraanu karim Maodo magee naa ko ay onze ans xale la Abdou Diouf moo ma mag ba muy bëree bëre ba muy jël ay ndef lañ jëlu ma ko te ma déggoon ma xamal la foofu xëy na xaay mooy kii bañ a toog promoteur di ñëw comme comme li ma dal nga xam ne làmm mooy sama métier yenn promoteur bañ ma tëggal xam nga mu metti ma ma muñ bàyyi lépp suñu borom moom lépp daal loolu moo moo ko dal mi ngi noon àddina noonu lay tuddee di ñaanal Maodo yàlla na ko Maodo daan jël bu leer nañ waaw yàlla na ko Maodo daan jël bu leer nañ ci woppam waaw ba léegi Fass lañuy des général bu Fass war a bëri nga mooy Coly Faye numéro nekk xale bi nga dafa nekk ci yoon war a relancer waat ndax nga gisee combat boobu waaw keroog na ma dikkee général sama rakk la barki dem ba mu ñëw si kër père ba fii la ñu daje ma ne ko foo jëm mu ne ma day ñoom ci père xam ma ko dëgg la mu ñëwee expliqué naa ko nga yow nii ngay bëri ba ñu jàppante songante foofu ko ne ko yow a bëri mu ko kontaan xale boo xam jox ñëpp respect am de mi ngi noonu mooy général mhm. te sama rakk la sama jarbaat la du sama sama jarbaat mhm. am de boo xoolee taille bi baax na presque deux ko ñaanal daal kolifa it bëgg nit mbër la na ko respecté moom tamit général waaw na ko respecté ñoom ñaar ay la ñu ndax na ko respecté waaw bu dee Maodo moom waru am moo mën Abdou Diouf loolu amul respecté ak ñàkk respecté Maodo moo ko mën mais comme ñee at ñee ay xale lañu tolloo ay âge na ko général teg ci temps teg ko ci kii xool ko ar ñu ko jàpp ko daan ko général daan jël bu set wicc ndax général xale la ñoom ñëpp faaf laa nekkoon ak ñoom ñu ngi naan l'espoir contre la jeunesse instant bi ñu ngi jàpp ne kii di général bu faas moo gën a féetee mag qualifié numéro 2. no dañuy wax ne nit déggu nit day nëbbu atam mbër yu bëri bu ñuy bëree dañuy wattu ndel pour ba ñu gis seen bijaaw yi man xam naa làmb mbër yu bëri fu mu ne nii dépassé nañu 40 ans jëm kaw man xam naa leen coow am de nit kay booy bëri jarul ngay watu ay ndel yooyu noonu balaagal comme ni may def. mais kan ma fóotu ndel. waaw na am pakam non dëgg a a ñëw ñu bëri mi ngi doon ay taxaw di wax ay mhm. ma bëri ñoom liiru boo génnoon 700 milliards moo gulli taqale ma leen mënu ma bëreeg ay Lac de Guiers 2 bëreeg ay santaan am de waaw mi ngi noonu bëriñ Tidiane Faye dafa daan jogowaat jël da koo daan ma ni ma daan jogowaat ñun ñaar ñoo ko daanoo am fois champion leen fekk xam ne daal moom mais damay kontaan ci Batista bu baax ñëw nañ fekk ko ci ay xat-xat waaye terewul bàyyi na leen doon def ñoo toog waxtaan ak te nit ku simple la di ko ñaanal jàmm moom tamit jàmm ju bare bare ba di kontaan ci moom waaye damay kontaan équipe bi ma àndal Bilal damay beg ci moom mention spéciale à Momo Mané sama chauffeur bopp bi damay kontaan ci moom bu baax noonu laay def jox leen dig daje beneen ñoon ak beneen champion ci beneen quartier jaajëf ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine a ngi dóor ci ñoom ñaar xeex